ñu gërëm borom caméraman yi gërëm it ñi nga xam ni ñoom lañ fi représenté ñaan yàlla yàlla na yàlla gën a barkeel seen liggéey ñoom ñi amee caméraman yi yàlla sàmm leen ne ñu ñaan leen nag ñu wàññi montage ne ndax bu montage amee rek am lu soppiku daa ngeen yokk mbaa ngeen wàññi mbaa ngeen sos loo amul loolu caméraman yi nag baaxoon nañ ko àddina nag jéggi di leen indil la nga leen di indil warula am sikk boo amulee sikk ba nga di ko yóbbu bu ko sikkal soog koo yóbbu ñu ngi leen di ñaan loolu ngeen ragal yàlla ci néegu yàlla nag ngeen ne de xew-xew nag bu saf yàlla ci ngeen ne bu ngeen toppee waxu jamono nag daa ngeen ci rax lu dul dëgg tooñ nag ay nit ka wax ni diw nee na tooñ nga ko bu fekkee ni waxul loolu kam ko nettali ba xelam yàqu tooñ nga ko ndax la yàq xelam yaa ci dugal loolu nag mënatuñ cee génne benn journaliste lu ñu leen wax fii bu ngeen fi jógee daal ni Tivaouane de recadré nañu journaliste yi xas nañ leen yamale nañ leen déedéet dañuy waxtaan ak yéen rek ñun ak yéen kat ñoo bokk lii yàlla na leen yàlla jàppale